jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare lamb ñu ngi leen di nuyu am kontaan ak mbégte jàkkaarloo waat ak yéen tey ñu ngi ci mercredi 18 décembre 2019 ki ñu fi woo di Mbaama garage production boole ñaari ndaanaan Tapha Gueye numéro 2 ak Abou Ndiassé Tapha Gueye numéro 2 moo jugee Pap Faas ànd ak Gris Bordeaux ànd ak waa Faas yëpp Abou Ndiassé Lansar ak waa Lansar gépp a ngi ci ginnaawam moom abu Niasse mbokk yi arbitre bi ngi wax ak ñoom ñaar nee abu Abou Niasse kaay nee na Tafa Gueye 2 kaay mu ngi leen di wax li règlement bi nangu ak li mu bañ ñoom ñaari mbëri Abou Niasse nee na ko waaw amul problème arbitre bi nee na leen sifflé moo leen di boole waaye moo leen di tàqale ku ñëw ci làmb ji yéen a leen fi indi laaj na ay siisam ba pare nañ Moustapha Gueye 2 daa mel ni ku yàqamti Abou Niasse nee na pare na Moustapha Gueye 2 nee pare na arbitre bi sifflé na Moustapha Gueye 2 ak Abou Niassé Moustapha Gueye 2 cokkaas na lamb gaaw la nar a doon Moustapha Gueye cokkaasaan na dafa bëgg a xeex Abou Niassé ñëw jël tànk yi Abou Niassé sóoraale suuf Moustapha Gueye 2 jël na tànk ba lu ma la waxoon lu ma la waxoon jinne la xeex nañ Moustapha Gueye 2 Abou Niassé Moustapha Gueye 2 Abou Niassé abu Niasse mu ngi tàllal loxo bi rek di dox ci kawam ndànk di dox ci kawam ndànk moom Moustapha Gueye 2 Moustapha Gueye 2 Abou Niasse ki ngay bëreel ndaanaan la ci làmb ki ngay bëreel yàgg naa bëre ki ngay bëreel moo la jiitu ci làmb bëre xale la ak mag expérience lay bëree moom Moustapha Gueye 2 waaye Abou Niasse ndànk nga mën a def ba jàpp ko boo bëggee xeex ak moom doo ko laal boo ko daan da nga koy jàpp. moom Moustapha Gueye 2 jinne la jinne la oh jinne la Moustapha Gueye 2 Abou Niasse Abou Niasse doxaan na ci kawam Moustapha Gueye 2 cokkaas na léegi cokkaasaat na léegi Abou Niasse ngi def lentement ci kawam di dox ndànk yëkkati loxo bi teg pied droit Abou Niasse mu ngi koy mu ngi naxtaan Moustapha Gueye 2 rek nee na ko taxawal. Abou Niasse moo féetee ginnaaw sëñ Bas moo def ngemb lu vax li Moustapha Gueye 2 moo def ngemb lu vert li jiital tànk ndi jor bi cokkaas na léegi jëlaat na tànk bi Abou Niasse dóor na ko mu daw Moustapha Gueye 2 Abou Niasse du ko bëgg a jàpp waaye pour nga jàpp Moustapha Gueye 2 du yomb ndax dafa am rapidité dafa gaaw ni muy duggee noonu lay génnee moom mu Gueye 2 sëñ Bass Moustapha Gueye de mu ngi noonu ngem moom ngem lu vert ñu ginnaaw Abou Niasse jàkkaarloog moom gis naa fi Gris Bordeaux gis naa Forza gis naa général bu Faas waa Faas yëpp indi Moustapha Gueye numéro 2 Moustapha Gueye 2 Abou Niasse waa Langsar ñoo ko indi ay fëgala Tidiane Faye Siteu borom États-Unis mbokk noonu ña ngay di xolante ci bët Abu da koo bëgg a jàpp waaye Moussa Abu fi mu toll nii da laa bëgg a toqiloo arbitre bi nee ko boo taxawul dama lay avertir Moustapha Gueye de arbitre bi sifle waat na sifle waat na Moustapha Gueye de Abou garde bi rek di dox ci koom lentement. moom mu Gueye 2 ak Abou Niasse Abou Niasse sonn la ci taxaw gi nga xamante ni moom lay Moustapha Gueye 2 ñàkk a taxaw mu ngi dox ci kawam abu Niasse mu Gueye 2 mu Gueye 2 mu ngi wër rek nanguwul taxaw benn place mu ngi koy wër-wër loo rek Moustapha Gueye mu ngi koy wër-wër loo rek Abou Niasse Moustapha Gueye 2 Abou Niang sa dernier combat am bi passé Iba Mar da koo perte bi mooy deuxième grand combat bëre naag ndaanaan bu ne ku bëre ak Bathie Seras Moustapha Gueye 2 ku bëre ak Armé daan yeneen ndaanaan ci làmb Moustapha Gueye 2 takkusaanam ba mook Aliou Mané Moustapha Gueye 2 ci làmb xel lay bëre ak yow concentré wul ak taxaw concentré wu ak taxaw concentré wu ak taxaw bul def lu bokkul ci làmb arbitre bi leen woo Moussa Ba Gueye 2 Abou Niasse da laa bëgg a jaxase ak public bi ban nax la daan la expérience lay bëreeg yow Abou kay bëreeg yow expérience lay bëreeg yow Moustapha Gueye 2 benn bis rëyut ci moom sëñ Basirou arbitre bi sifla waat na Moustapha Gueye 2 Abou Niasse Moustapha Gueye 2 moo la woon ginnaaw ngemboo ngembul Lagos bi Moustapha Gueye 2 moo ngemboo ngembulu vertali Abou Niasse moo takk sengoor yu bari rek ma ngay leetoo Moustapha Gueye 2 Abou Niasse ñu ngay leetoo Moustapha Gueye de ngay wër wër loo ngay dóor na Moustapha Gueye de dóor na dóor na Moustapha Gueye de da koo bëgg nax da koo bëgg nax benn bis rëyut ci benn bis rëyut ci mu ngay cappi cappi waa Moustapha Gueye de lu muy nii hee lamb ay Moustapha Gueye de jinne la ci bëre bëre naa ku ne benn bis rëyut ci moom Moustapha Gueye abu Niasse abu Niasse ngi lee toog moom Moustapha Gueye de day dem gauche ba mu yàgg mu dem droite day dem gauche ba mu yàgg mu dem droite abu door na Moustapha Gueye de bañ na ñoom ñaar ma ngay daw rek Moustapha Gueye de bu demee gauche ba mu yàgg mu daw dem droite di ko wër-wër loo li mu bëgg mooy Abou Niasse mer énervé wu dox ci koom. Moustapha Gueye 2 mun koo jàpp loolu mooy stratégie bi mu dëkk Moustapha Gueye 2 Moustapha Gueye 2 public baa nga yuuxu ma ngay bëre di fecc ma ngay bëre di fecc ay waay Moustapha Gueye 2 laay laay lalla <laughs> sëñ Bas lii mosoo koo gis ci lamb eh, déet mosuma gis li ni mel di bëre di fecc mosuma gis li ni mel waay Moustapha Gueye 2 lamb namm nañ ko ah waay waay waay waay c'est l'expérience da koy da koy déconcentré fi mu ne nii bëgg lu dul mu déconcentré wu parce que Abou Ndiassé boo ko xoolee aussi concentration bi dafa bari dafa concentré wu ci combat am respecté adversaire am. Moussa Ba Gueye de da koo bëgg a bi ci mais gars yi Abou Ndiassé ñëpp a ngi ak moom Moussa Ba Gueye waaye benn bis rëyut ci moom sëñ Bas bëre na ku ne nee na ay public am génn leen Abou dàq na. moo tax ku mel ni Moustapha Gueye 2 phénomène la ci lamb arbitre bi sifflé waat na Moustapha Gueye 2 Abou Niasse Abou nga ferme garde bi dox ci koom mbokk yi Moustapha Gueye 2 moo la woon ginnaaw Abou Niasse ngeen jàkkaar lool abu Niasse mu ngi dox ci koom Moustapha Gueye mu ngi koy wër wër loo fecc ma ngay bëre Moustapha Gueye de ma ngay maaj ndeysaan ay waay waaw ay waay léewal lamb foola waaye ku daanu rus Moustapha Gueye de foola ko ma ngay bëre ma ngay foo ma ngay fecc Abou Ndiassé tey yab nga client boo du yàqale fenn timeekaay <laughs> Abou Ndiassé laa ilaaha illallaah mënatuñoo xaar ba tey. jiili jiili public bi fuñ jëm public bi fuñ jëm. public bi dafa am benn xaritu Abu Ñaase bu ñu policiers yi jàpp moom la public bi wàcc di daw di ko dimbali ji waaye Moustapha Gueye de énervé loo Abu Ñaase ba mu mer ci mekaayam mer mu yëngal ci mekaay bi est-ce baax na ci Abu Ñaase. ah mooy li di ko def. mooy li ma la wax de xool ko xoolal Moustapha Gueye de dama reena lii musuma koo gis <laughs> waaye lii mooy làmb Moussa Waa Gueye ay ndeysaan daw na Abu Ñaase Moussa Waa Gueye de ay Abu yab nga client boo du yekkale fenn suñu mbokk internet yi lii mosoo leen koo gis ci làmb Moustapha Gueye de dégg moo ko fi jiili maa jommi. billaay maa jommi. damaa xam ne damaa xam ne pièce bi Moustapha Gueye bi Moustapha Gueye di tendre Abou Ndiassé bu ci Abou Ndiassé daanoo rek mooy daanu na ci combat bi maa lox lool te gis nga gis nga cumbukaayam fi mu ne nii am na benn cacophonie bu am ci cumbukaayam Abou Ndiassé fi mu ne énervé wu na mais nag mais nag yaa ngay bari nag ci Moustapha Gueye de avertissement yi bare damay ragal mu perte par décision arbitrale ndax loolu baaxul ci Moustapha Gueye numéro 2 Abou Niasse di moo ko jaaxal waaye mu ngi koy wër-wër rek Moustapha Gueye de nag war ngaa taxaw bëree xale bi ndax boo lekkee avance am du nii mooy bëre bi da ngaa war a taxaw bëre wane jom ak fit ak njàmbaar ba lu la yàlla may nga jël askan bi la fi seetaan du nii ngay wër rek di daw. ñaaw na ñaaw na ci làmb Abou Ndiassé mii daan Moustapha Gueye par décision arbitrale dina ñaaw ci Moustapha Gueye parce que aussi jëlul benn initiative bu bëre mais bu fekkee ne tey da koy këppatal ñu dem ba avertissement yi di waaj a jeex mu ñëw jéngu bëre bëre bi benn yoon daan ko daa dans ce cas danañ comprendre ci ay jeu nekkoon mais nag kenn du accepter lii nga xam ne nii moom la Moustapha Gueye di def te teg ko rek ci ñàkk bëre bu dee ay stratégie daal c'est parce que mën na am lu muy lu muy xaar waaw stratégie waaye lii mu bëgg a bëree du bokk ci luy doxal làmb moom Moustapha Gueye 2 ndax wax dëgg buñ la fayee fay abu Niasse indi leen fii ndeysaan ci meykaaye Abou Niasse kenn mënatu leen a téye façon bu taxawal teg sa tànk bërëg moom li ngay def làmb mën nañ laa xeeb lii ngay def Moustapha Gueye 2 làmb mën nañoo noppi ci yow. ànk mu ngi ci biti làmb tey boo bëggee saay su ne ñu tëgg la say rak di leen ko jox da ngay wane exemple bu rafet wax dëgg Abou Niasse li mu war a def mu ngi koy def Moustapha Gueye 2 am na quatre avertissement sëñ Bass li may ragal mooy abu Niasse gagné ko par décision arbitrale te loolu du luy honoré làmb ma ngay daw abu Niasse topp na ci koom Moustapha Gueye taxawal taxawal taxawal Moustapha Gueye 2 taxawal Abou Niasse ngi dox ci koom ma ngay dox ci koom Abou mu ngay dox ci koom ndànk mu ngi koy wër-wërloo Abou dox ci koom Moustapha Gueye 2 Abou moo ci des bu Moustapha Gueye amaatee avertissement dañ koy disqualifié. bu arbitre bi àttee ñu disqualifié ko te loolu taxul mbokk amateur yi ñëw fi loolu taxul. ñu dagg suñuy billet loolu taxul supporters yi ñëw loolu taxul làmb ji presse bi ñëpp teew fi Moustapha Gueye 2 dafa jot mu taxaw bëre ndax dafa mel ni lii moo ko arrangé amuñu asa bañ koo daan mu jël décision par décision arbitrale ñu disqualifié ko mu ñàkk. mais bu boobaa aussi day ñaaw parce que bëre woo da ngaa daw ba làmb ji jeex ñu disqualifié la loolu moog defet moo rek moog ñu daan la moo yem mais li ma doon comprendre mooy tey. moom mu bëre ak moom bëre bu metti abu Ndiassé teg mu tegi lu abu Ndiassé def mu dindi ko ba arbit euh, jox joxe défaite par décision bu boobaa ñu xam ne moom li war a def def na ko mais instant bi bëriwul bàyyiwul day daw. bëriwul bàyyiwul. Abou Ndiassé dox na ci koom waaye abul risque bi mu bëgg a jël sëñ Bas risque la boo bëggee topp Moustapha Gueye ci maninam muy daw nga di ko topp mën ngaa juum te fii làmb ji toll war a toocee juum Moustapha Gueye de génn saako yi arbitre bi àtte na arbitre bi àtte na dañ koy avertir avertissement sot de libé cinq jox nañ Moustapha Gueye 2 tey nga ñëw ci lamb waaw indi mbooloo am supporter yi luñ la wan est-ce que lii lañ doon xaar ci yow Moustapha est-ce que lii nga doon xaar ci Abou Ndiassé lii nga doon xaar ci moom ponkal mu toll nii war a fekk Tapha Gueye jàpp ko bëgg lu yomb moo tax mu jël mais dama koy bëri loolu yomb ko àll tey tey Moustapha war a bëre war na ma war a bëre man war a bëre war na ma war a bëre mais yéen ñaar yéen a waroon bëre yéen ñaar la parce que avance lañ leen jox jàmbaar nga ci làmb abu xam nañ la xam nañ sa bëgg-bëgg ci làmb xam nañ fi nga toll ci jàmm gën bul jooy taxawal ngay waxal say supporter àdduna ñoo lay seet may ma ñu def suñu jili jili moytu jili arriéral ba teg bët quoi même bu dul dara xam lii dafa rafetul ñu ñëw pour làmb wala bële bële wuñu ñuy dóor ay rakole ma ni xam nga duñ def affaire yu ñaaw yi bu sete di bëre même chose xam nga abu njaase tamit di rafetul quoi xoolal lii xoolal lii lii rafetul dafa ñaaw xam yokkul yaa waañ père père Moustapha Gueye daa bëre abu njaase ñu bëre combat bi yàgg loolu Moustapha Gueye de bëriwul xeexul deful dara est-ce que Abou Niasse lii ngeen loolu du amul gisee Tafa Gueye moo bëriwul bëriwul day arrière di daw bëriwul te daawul bëre nii moom danaa ñëw bëre ci fulla daan wala mu daanu mais tey gis nañ xeexul bërewul et puis tey sax di fecc yàgg ngeen a seetaan mais Tafa Gueye de musta bëre nii mbër nag du daw xanaa nga plongé ci suuf si tëdd mais ku ne lii honoré na lamb non non kenn saw kenn xaarul woon loolu. mais nag ba nga dalee seetaan lamb ba léegi yaa ngi doog a gis lii. waaw lan ngay wax Abou Niasse bi muy ñëw lan ngay wax rek moom xale la moom xale la. te ñëpp xam nañ ne moom yàqul lamb ji. jërëjëf. jërë ngeen jëf mbokk yi gis ngeen lii lañ leen indil ci stade bi nga xamante ne mooy stade Diom Iba Mar Diop ci diggante Moustapha gay 2 ak Abou Niasse waaye lamb ji gis nga ni mu mujjee Moustapha Gueye 2 dañ koo mujjee disqualifié sëñ Bas ndax dafa am quatre cinq avertissement te règlement bi daf ne boo amee cinq avertissement dañ lay disqualifié noonu la Abou daanee ki nga xamante ni mooy Moustapha Gueye numéro 2 par décision arbitrale waaye Moustapha Gueye 2 yaa ngi bëre koo xamante ni sa moroomu doom la bi ngay bëree takkagul ngemb bi ngay bëree duggul ci làmb tey boo ñëwee ci fii stade Jom Iba Mar say mbokk ñëw say supporter ñëw say am di jàmm amateur yëpp ñëw ngir yow boo ñëwee da ngaa war a bokk ci ñi nga xamante ne yéenay honoré làmb waaye liy honoré wul làmb ndax tey boo bëree ak Abou Niasse xeexoo liñ la doon séntu ci yow indiwoo ko vraiment làmb ji liñ séntu woon ci yow yëpp. gisuñu ko Abou Niassé nag li nga def loolu nga war a def ndax wax dëgg wolof daf ne ku yokkul yaa wàññi tey booy bëreeg mag boo xamante ni moo mel ni Moustapha Gueye 2 doo ñëw di parax sa combat wala ngay ñëw di daw ci koom wala ngay dalanteeg da ngay def ndànk dox ci koom ba jàpp ko am li nga bëgg a am ci moom waaye comme yàlla noonu la ko dogalee mbokk yi ñuy félicité bu baax a baax a baax Abou Niassé di encouragé Moustapha Gueye 2 di waxaat bu baax a baax a baax ñii nga xamante ni ñooy dirigeant wu Fass yi wala ñooy écurie Fass nañ xoolaat bu baax a taxawaay ci làmb ndax ku mel ni Moustapha Gueye 2 bu ngeen ko ngembee Moustapha Gueye 2 ñu gis Gris Bordeaux ci wetam gis Forza ci wetam mu bëree bëre bii mu bëree wax dëgg daf ñuy jaaxal ñun ñi nga xamante ni dañoo bokk ci làmb ñu ngi leen di tàggu nag tàggoo bi nga xamante ni moo dul tàqalikoo fii ci wasaare làmb ba ëllëg incha allah ak beneen ndaanaan jaa ngeen jëf.